la لم يلحني إلى دخول الجنة غير بشارات غليظ منا لم يلوني زجر ولا وحيد وهمري إلى الجنان عيد أفلي سر المسون الله حبا ولا إله إلا الله هداني الله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 mbokk yi gën a si dellu suñu borom subhanahu wa taala jur ci te santaat baax baax baax seen am xet bi ñaan baax seen Tuubaa Sëñ seen am di mënu Medefal baax sama borom yàgg loo tànn wér ak mboolem njaboot suñu Tuubaa yi tabarkàlla mi ngi ne kon di ànd ak waa waa Tawfekh Production yi Sëñ Taal Jeen ngi dalal ñi xam ne wooy waa daara Jalbul Maraaxib jëwriñ yi yi ñu fas leen laaj ay question yi nga xam ne nii mooy li sababu daara Dialibatoul Marakhib xam mooy jëriñ ji mi ngi mi ngi nii mi ngi seen Amine Diop mi nga xam ne mooy jiite jëriñ daara ji ak seen jili ba soxna Diar Seck moo xam ne mooy jëriñu soxna yi mi ngi ne Saliou ndigal mooy yi nga xam ne moom mooy jëriñu li nga xam ne mooy culture daara ji wala yëf wala njàng la njàngale mi eh, te jii bu ñu bëggoon mooy cosaanu daara ji Dialibatoul Marakhib ana loolu loolu lan ngeen di wax waaw jërëjëf suñu Baye Modou daara Dialibatoul Marakhib nag moom daa nekk ay ndaw yoo xam dañoo jug ngir liggéey sëriñ bi te lépp ñu teg ci bëggu sëriñ bi mooy di tàggat ay ndaw ci ñu jàng alxuraanul karim ak xasida ak xam-xam ak timit di leen yar bu baax a baax a baax loolu mooy xemmem def mi nga xamante ni moom la daara Jawahirul Maraxib am te di ko doxal ginnaaw daara ji nag bu dee sos gi ñu ngi ko sos ci diggante ci 2016 nga xam ne booba ku ñu wax sëñ Ibrahima Ñang moo nekkoon jëriñ ji si leen sosoon daara jëriñ daara jàpp laa xib bi ñu koy doog a sos nag moom dañ ko yemal woon ci daara jàngalem xasida kase ak xam-xam waaye ba ndee ba gis ne lu mel ne daara alxuraan ci gox bi ñu toll xaw na fee am nu mu def nga xam ne ñu fi doon jàng ñoo mujjoon tuxu nga xam ne loolu xaw na fee manqué ci leen sos si leen sos daara alxuraan sosee tamit bi ñu doxee tuuti ginnaaw bi Mouhamad Diop mi sëñ Mouhamad Diop mi nga xam ne mooy mujj nekk njiital soxna yi so njël njit li soxna jaare mbale moo nekk njiital soxna yi nga xam ne daara ji dañoo tënku ci si sëriñ bi mooy jàng alxuraan ak xam-xam ak xasida daara ji yemut ci jàngal ndaw ñi dong ba ci am na daara yu taxal yoo xam ne dañ koo jagle suñu waajur yi nga xam ne daara ji am na ay mag ñoo xamante ni suñu waajur la ñoo xam dañuy jàng comme ni ko tutank yi defee nga xam ne ba bu set dañuy jàng muy lu mel ne samedi ak dimanche ak altine ak talaata ak alarba mu nekk ñetti daara yoo xamante ni yu fasantikoo la nga xam ne bokkut ak daara ji mag ji di jaar daara ji alwat maraxib waaw kon lii mooy sosu daara mooy liggéey bi nga xam moo ngi ciy def waaw koy jërëjëf jërëjëf si Saloum Mbaye ci li nga xam ne moom mooy réponse yu am solo yooyu kon demeen ko sababu daara ji mi ngi taxaw li nga xam ne mooy dëgg-dëgg daara ji ngi xam ne mooy ba ci 2022 kon muy liggéey boo xam ni mi ngi jéego mi ngi dox mu mel ni kon wala euh, njàng ne moom nekk loo xam ne du jafe la rawat na rawat na ay soxna ay soxna euh, muy lu xam lu lu lu yéeme la waaye tey jii nga xam ne mooy soxna yi ci ci wàllum tàgge ci wàllum yar googu rawat na ci wàllum xaside yi tey jii boo ñoo wax ci wàllum xaside yi ci wàllum mokkal gi foofu ana tamit ndax danga am ñoo xam ñoo di jàppale ci wàllum njàngale mi rek njàngame yooyu noonu wala déet waaw suñ suñu baay Modou bu dee ci wàllum soxna yi moom weesuwul ci ni nga xam moom la sëriñ bi jàngalee bëgg ni soxna mel ko kon wàllum soxna yi moom noonu rek ci doog li la leen tàggat nga xam ne dañuy jàng alxuraan buñ xëyee lañuy jàng alxuraan neuf heures la ñuy dugg daal di wàcc une bu ñu wàccee une ci biir ci biir njàng moom am na ci ñoo xam ne da tànn ñi xam ne war nañu jàng majaalis ñu jàng majaalis ci biir ginnaaw bu wàccee si la ñuy dugg trois heures jotee ñu duggaat bu ñu duggee trois heures wàcc cinq heures bu ñu wàccee cinq dañuy si leen continuer nag jàng xaside bi ba ba ba timis su ko def ñu daal di ñaan daal di dem bu dee suñu waajur suñu waajur tamit ngoon gi la ñuy jàng nga xam ne takkusaan la ñuy jàng ñoom tamit ba timis a rawoon jàppoon na dootuñu ba am na ñoo xam ñu ngi jàng lu mel ne tasuudu sixaar ak tamit am na ñoo xam te ci alxuraan ci ñoo si góorgóorlu ba commencé seen sori fexe nan daal ba ñu commencé xam seen fàtte jëmm ñoom ñëpp rek waaw noonu lañ koy doxalee ah, bu dee bu ci wàllum jàng tamit am na ci ñoo xam ne dañu si dañu si jàppale ndax boo xoolee daara ji Euh, bu dee ñu jàng alxuraan toll nañ ci ñoo toll nañ ci ñaar téeméer yu manqué fanweer nga xam dañuy jàng si alxuraan bu dee ngongu ñi nga xam dañuy jàng xasida toll nañ ci ñaar téeméer ñaar téeméer ak ak ak ak ñaar fukk yu manqué ak benn ñu manqué benn moom toll nañ si loolu bu dee suñu waajur yi nga xamante ni ñoo leen fekk ji di leen jàngal ci ñetti daara mooy mel ne daara yi gi nga xamante ne soxna Ndag moo ko jiite ak daara ji nga xam soxna Nday Jaw moo ko jiite nga xam ne soxna Nday Touré ko jiite nga xam ne ñett daara bu ñu boole li fi ñaar fukki nit nga la ñoom tamit seen daara yi bëri ci wàllum jàngale mi ku mel ne sëñ Abdou Khadir bokk na ci ñu ci jàppale ak sëñ Tamsir Cissé ak euh, sëñ Baye Mor sëñ ak sëñ sëñ sëñ Cheikhouna Mbacké nga xam ne ñii nooñuy jàngal si njàng bu dee ci biir soxna yi tamit ñu ci tànnaat ñoo xam ne ku mel ne soxna Jaara Sekk mi ak ñeneen ñu mel ne moom ku mel ne soxna Aara Diop ak euh, ku mel ne soxna Ndeye Guèye nga xam dañ ko def programme ak soxna Wali ak soxna Daba Diop nga xam dañ ko def ak programme ñenn ñu ci ne dana am ñun la jox ñoo xamante ne ñoom ñoo yor ñoo yor lu mel noonu waaw liggéey bi ci wàllum sëriñ daara bi nga xamante ni mooy nekk ci daara ji ñëw teg ko ci daara ji mu fi jàng suñu Mamour Mbacke moo fi jàng alxuraan tey foore ñu profité waa di dugalaale di siyaare sëriñ Maxtaar Jenn di ñaan suñu borom kattanal ko dëgëral ko te sàmm ko te aar ko ndax moom tamit ñu ànd ak moom ci biir liggéey bi ndax dañoo may fit waaw moom dañoo may fit sa dañoo ci côté yëpp waaw nga xam ne bi mu dikkee sax moom lim mu njëkk def mooy sëriñ daara bi li nga xam moom la warloo ak moom moom la njëkk a jaayante sëriñ daara bi nag dañ ko daan doxle suñu biir mooy te nekku ne ñi doon jàng doon doon fay doon fay dara mooy tout temps ñun ñi nga xam ñoo nekk ci biir daara ji muy jëw ñi ak ñi génn ñooy def chaque weer kenn ku ci ne joxeel la ngay jaayante su ko defee ñu dayale ko di ko jox sëriñ ni di ko neexale ndax nga xam ne di dee ñuy war di jàngalaat ngoon ngi xasida ak xam-xam bi ñooñu moom amul leen lu daara ji war ak ñoom dañ ko jaay ne gay doon def suñu waxtaan nag nga xam ne daa ñëw doon ñëw may xam ne moom li mu njëkk def mooy jaayant loolu ñu doon jaayanti mu ne kat bu ngeen a bàyyi bu ngeen a mayoon kat li ma bëgg mooy sëriñ daara bi ngeen bàyyi ma ma ma warloo te yëmul ca loolu tamit matériel yi nga xamante ni daara ji soxla woon na ko yàgg ko mébét te suñu borom dugalul woon mu mu mu ko woon ndax daara ji da doon doxee noo xam ne lépp lu masaan soxla daal dem ci kenn di ko wuti dan daara def suñu biir ay jaayante nga xam ne daa daa koy faj sëñ bi nag mu dikkee ne moom jëlal nañu matériaux sax dañu ko bëggal mu nekk si xaaj boo xaw naa takk na lool te yemul ci loolu tamit moo ñu taxaw ci mu bëgg ndax dem na ba wax taxaw daane lépp lu xam gis ngeen ko te bëgg ko bu leen ba ba xalaat doo ngeen ci man maay fay bu boobaa leen wax ma nga xam ne yëmul sax si si yëmul sax ci ci ah, yooyu kese mu ñu jéem a wutal daara joo xam ne sax dañ fay mën a nekkal suñu bopp nga xam ne kenn ñu fa jëlee loolu lépp ci ay mbébétam la bokk kon yàlla na ko suñu borom kàttanal te dëgëral ko te sàmm ko te aar ko te mosul ci seytaan a bala ak lépp loolu te it moom noonu mu ko defee ci ñun tamit noonu la ko defee ci ñëpp kon li ñu wax nii nekkul ne ñun kese ñoo koy wax ñëpp koy wax waaw di ziar tamit jëriñ ji si jëriñ Mouhamed bi xam tamit jëriñ ju mat jëriñ la waaw moom tamit lépp mooma liggéey bu neem ak si fi tamit lépp mooma waaw jàmbaale ci ak suñu Abdou Khari soxna jaara nekk ay borom pas-pas ñu bëgg suñ Tuubaa te gëm ko te wóolu ko jërëjëf kon day mel mat na fi mu toll ndax day mel ni kon li ñu war a wax lépp macha allah si Saliou Mbaye kaddu yu am solo yi yëpp day mel ni ah, wax nga ko ci mel ni ki nga xam mooy sëñ Maxaat wax nga ko te warka loolu ah, social xam ne ñun lu ñu defal moom rënd ci ñun lool lool lool wax dëgg yàlla xam naan kon kàddu gu mujj rek laaj mujj rek mooy laytu xatar gi ñu gis ñi tawarkala ñoom it daara ji ko taxawal te ñu indi ko fii ci xam mooy jumaa ji te bu ñu bu ñu mën defee tamit li nga xam ne mooy jàng xam ne waaw bu dee lu mel ne daara jaay ut maanaam dafa am ay programme yoo xam ne da koy faral di taxawal la ci njëkk mooy lu mel ne Kazu nga xam ne daara ji ko tax ak tarib xaside bi mooy bu ne suba la Kazu nga xam ne tout temps nga xam ne dañoo tari alxuraan ak di ko jàng ñoom dañ leen bis boo xam ne koy taxawal ak lu mel ne safar nga xam ne safar gi moom bu dul si agsi moom Sëriñ Xamsatu Mbàkke moom mooy tànn bis bi nga xam ci nii moom moom lañ koy def nga xam ne su rek dañ koy daal matal li mooy programme yi xam ne moo daan daal ji rek ak mbaaxam ak bëggam lu baax ak bëggam bëgg bëgg bëgg Sëriñ Tuubaa tey tey yëmale ko dara moo waral li comme tey ñu def ko ci biir jumaa ji nga xam ne boo xoolee sëmb bi mu sëmbal Sëriñ Tuubaa nga xam ne bokk na ci li gënaloon gënaloon sëñ ci biir dëkkam bi tey yëmu ci li fekkoon ne mu samp ay daal alxuraan comme ci biir ci biir këram mm. nga xam ne dem na ba xaaj këram sax ngir ngir jox alxuraan mm. kon loolu lépp ak ak bëggam la bëggam lu baax la kon yàlla na suñu borom gën a kàttan te dëgëral ko waaw ñu ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ci mboolem ñi nga xamante ne taxawoon nañu ci biir liggéey bu baax a baax a baax kon daal loolu mooy saw leelu xadar bi nga xam ne leelu xadar bi bu dikkee dañ koy dundal sax leelu xadar bu dikkee dañ koy dundal bu bët set ci njàngum alxuraan bu ñu ay ay kaamil suñu paree def ay kuréeli jàng rajas ki daare rajas su ko defee ñu ba nga xamante ni waxtu wi sori na bu demee ba noddu ñu daal di ñu ñaan daal di delluwaat ci kii ba beneen yoon incha allahu rabbi waa loolu daal mooy tënku kii bi laa doon xaddal geeg programme yi nga xam daara jar mën a am na ko jërëjëf macha allah jërëjëf sëriñ Saliou Mbaye moom nga xam ne moom mooy euh, jëriñu li euh, nga xam ne mooy culture mooy yor wàllum njàng njàng mi moog si Abdou Khadre bi mii euh, di sant bu baax baax baax baax ki nga xam ne moom mooy sëriñ Matar Dieng kon nu waxee loolu tubarkalla xam naa rek dañuy kon ñu jox li nga xam ne mooy kàddu soññi dëgg-dëgg nag liggéey bi bu defee nañu tëj liggéey bi kon kon sëriñ Saliou dinañ joxaat rek liggéey micro bi nga def soññi soññi boo xam ne bu am solo lay doon rek bu defee rek ñu lay tëj beneen incha allah waaw comme suñu baaw ni nga ko waxee rek liggéey moom noonu la ndax sëriñ bi dëkk bi mu koy sancum daanaka jàng ak jàngale rek daanaka moo taxoon kon ñu sax ci jaamu yàlla tey tey tey liggéey bu baax góorgóorlu bu baax ci ndigal yi te moytu mboolem tere yi te it ñuy siyaarawaat timit mboolem daara yi nga xam ne dañoo wër te di leen wax na tamit ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bu baax a baax ndax li li gënal sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekk mooy alxuraan ak xasida waaw te dafa naa njort ci bu baax ne gox bi ni ni ñu àndoo def ko nii ba sëñ bi dikkoon dikkaatoon tamit duñ sopp aw doxalin ndax ma wax dëgg yàlla macha allah kon ñu ngi soññaat mboolem ñi nga xamante ni ñoo bokk liggéey bi muy ñu gën a amaat pas ndax pas-pas ak positif ak positif rek daanaka moo jàll nit ñi jamono ji ñu gën a dëgguwaat sëñ bi fexe ba suñu dara bañ a génn sëriñ bi suñuy wax wax ak suñuy jëf suñuy lépp li sëriñ bi ndax suñu bay jaar dafa xam ne ndax am am murid saa su bëgg lu dul ndigal ak ngërëm dootu benn murid waaw murit dëgg yombal la yombee nga wax ne man amul murit daa ne ku tàggoogu la soxla kay du murit ka tàggoogu soxla di ngeen bi murit daa nag béydi boobu moom suñu bay jaxat wax na bokk na ci li tax ñu naw suñu maxtaar ndax dem nañ ba gis na ay yitey bopp sax ay yitey bopp sax moom xool du ko yitey bi rek waaw nga xam ne loolu kon daal ñu ngi soññ ñëpp ne ak suñu waajur yi loolu tamit lu ñu ñor la ndax boo xoolee tari bi ñu amal bu jàll bi suñu waajur yi tamit bokk na si ñi nga xam ne dañu jox micro ñuy tari waaw di leeral ñeneen ñuy tari xasida ñeneen di tari si xam-xam ak tasawudu si xaar xamante ni di ko leeral bu baax a baax a baax a baax te jàpp demoon ba jàpp ñoom ne am njàng weesal kon ñu ngi soññi mboolem daara yi ne ñoo ñu wër ak ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan bu baax a baax jàpp a gurgural ci ndax lu am solo la ndax loolu tax ñun taxawal ko dañoo gisoon ne lépp luñ xëy def ko ci xale yi gon def ko ci xale yi bu xale yi fanaane seen waajur yi bu ndikkee am lu bëri lu xaw wàññeeku ñoom si leen gaaw di profité daal daw wut wuti waajur yi nga xam ne si ay natt la leen fekkoon yu waar lool waaye ñoom ñu bëgg ñu baax bëgg lu baax la waaye dañu amul woon lu mel nii lu taxaw lu lu mën di jànge lu xam lu xam lu nga xam ne bi ñu demee kii ko dañu ko yombal lool si leen gaare gaay sam ay daara di leen di leen jàngal ñu xam seen i faratay jëmm ñum ñëpp rek nga xam ne ñu si soññu ñëpp ndax lu ma ñor la lool waaw loolu lu ñor la ñun bëgg nañ gox boo dugg si Touba rek ndaw ñaak mag ñi ñëpp ànd jub sax si jaamu yàlla seen kéemtalaay kattan ngi ngi liggéey ko suñ bi ni ko suñ Mountakha di waxee kon nañ si góorgóorluwaat bu baax a baax ñu ngi soññ mboolem daara yëpp tey Touba ci kàddu yu baax lépp dëgg nga xam ne suñ matt di la rek waaw lu ci jub ñu xam ne sëriñ bi la wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf suñu Baye Modou waaleykum salaam wa rahmatullahi taala barakaatu kon jërëjëf sëñ Saliou Mbaye ci kaddu yu am solo yooyu kaddu soñ ba nga taxawaay bi am solo lool kon daal ñu ngi sant di leen gërëm baax baax baax waa aaxi dafe na alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh سكل لربي كريم كان سكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا كتبت سكرا له ما قد رجوت بكوني سعيدا وسكارا وسكارا وأجد وجهي في سر نبي سنتي lil akrami rafir wax bisakara rajabtu minu taala sukro amali wa rafon yawma ani nima qawara rajatu an yamuwa rajatu an yamuwa salati jumlata anni wa tasiru li dana ko wara inni ukhatibu في البان مغتربا ولم يسل جلا قهرا وجبارا فجاء أخذني ربي بالألاء قبلي أن أعدني البر رد كل من بارا على النبي صلي بتنيمي بالكرما وارفع وسنيا بعد رفع أبكارا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 di la jox too wàccuwaay xam naa kon dama la bàyyi liggéey bi rek muy daara jàpp maraxib booba booba léegi nga ànd ak ñoom di liggéey bi waaye rawatina li nga xam xam nga ne yombut ñu bàyyi rek bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ginnaaw ba leen bu baax di ziar sunu mbokk kilifa yëpp leen ziar bu baax a baax di rafetlu bu baax solo bi ginnaaw bañ la nuyoo ba pare nag ñu rafetlu bu baax ci jotaay bu am solo bi li nga xamante ne nii mooy liggéey bi nga xamante ni moom lañ bokk mooy liggéeyub Serigne bi nga xam ne ñun ñëpp ci àndoo ci liggéeyal Serigne Touba mu nekk loo xamante ne nii euh, taxawal yàgg nañ ko euh, taxawal ñu nekkoon ci nag ak ay ndaw ak ay tuntàkk yoo xamante ne nii ñoom lañ ko seqal di ci liggéeyal Serigne Touba. commencé ko ca la dara duunutoon dara ba tey ji di sant suñu borom bu baax a baax ndax liggéey bi fa mu commencé ñu commencé woon ci mbaar moo xam ne mbaar mu ndaw la woon ñu nekk ci di ci jàngale maal xasaayit ba yàlla def suñ borom def nga euh, mu yokk ñu mu gi di jàngale xasaayit di jàngale alxuraan ci suba gi jàngale xam-xam ci ngoon gi ànd ko ak ay tout tànk yu góor ak tout tànk yu jigéen ci liggéeyal Serigne Touba ba nga xamante ni liggéey bi yokku na léegi ba yegg ci lu tolloo ñetti daara daara ju mag ji nga xam ne moo nekk ci koñ bi mooy daara jaare ba daa Jaalibatul Maraaxib bi nekk ci koñ bi ju mag ji ak yeneen daara yoo xamante ne nii eh, soxna yi ñoo ci jàng mooy sunu mbokk yaay yi sunu yaay yi ñoom ñoo ci jàngee kon loolu ak sant suñu borom la bu baax a baax am nañ ci ak yokkuta bu baax ci liggéey Serigne tubaab bi ñuy gën a santaat yàlla bu baax a baax ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey di sant bu baax a baax ñi nga xamante ni ñooy euh, euh, kilifa yi jotaay bi di kilifa liggéey bi mooy suñ mbokk yu baax yi euh, suñ jëwriñ yu baax yi nga xamante ni mooy seen jëwriñ Mohamed ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoo topp sa ginnaawam rek ñu leen sant bu baax di rafetlu tamit liggéey bi nga xamante ni moom lañ moom lañ taxawale liggéey bi di euh, santaat bu baax ki nga xamante ni nii mooy sëñ Mokhtar jën moom mi nga xamante ni nii moom tamit jën na léppam def ko ci liggéey sëriñ Touba bi fekk ñu ci liggéey bi di ci defal li nga xamante ni mooy sëriñ Touba di ci defal yàlla gis nan bu baax li nga xamante ni moom la def ci liggéey bi ak li nga xamante ni moom la def ci liggéey bi kon ñu koy sant bu baax a baax. gis nañ rafet gis nañ tamit teewaayam ak rafet li nga xamante ni moom lay def ci liggéey bi gis nañ ko bu baax a baax ak yokkute gi bu baax a baax kon ñu koy sant bu baax te di ko gërëm ñu ngi sant bu baax sunu mbokki soxna yi sunu yaay yi nga xamante ni tamit mm, ñoom ñoo ñu jiite nga xamante ni gis nañ ne suñu doxin rafet na ñu daal di ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal Serigne Touba. ànd ceeg ñun di ci doxee doxin bu rafet ñu bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp gis na liggéey bi kat ni ñu ci nekkee nekk na nekkin boo xam nekkin bu rafet la ñoom tamit ñu ànd ak ñun ci liggéey bi nga xam ne moom la nekk di ci liggéeyal Serigne Touba kon suñ jugee ñu jug suñu gontee ñu gontu di euh, santaat bu baax ñi nga xamante ni ñooy euh, soxna yi nga xamante ni ñoom tamit ñooy tuut tànk yi nga xam ñoo topp ci suñ ginnaaw ñu jiitaleen te neex a digal bu baax a baax te am yar bu baax a baax bëgg liggéey bi fonk liggéey bi di dox ci liggéey bi comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, leen santee ak comme ni nga xamante ne noonu la ko sëriñ bi bëggee am ci yitte lool yitte ju kawe kawe kawe kon ñu leen di sant bu baax di leen gën a soññ ñu gën a doxaat gën a yokkaat seen yitte ak seen euh, seen bëgg-bëgg ak seen xamante ci sëriñ bi ñu ngi santaat yàlla bu baax tey santaat sëriñ Touba. julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tantaat ki nga xamante ni mooy sëñ Mame Mor moom tamit moo fi jàngale alquran ci daara ji xam-xam kon ñu ngi koy sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo koy jàngale nag ci wàllum xasaayid yi soxna yi ay soxna daba soxna aada ak yàlla yi ñoom ñëpp ba ci jëwriñ commencé jëwriñ ak ba ci suuf ay ñoom sëñ Saliou ñoom tamit ñoo xam ne jàngale euh, sëñ ñoom ñëpp ku lim da ngay juum ñoo ngi leen sant taxawaay bi nga xam ne taxaw ci liggéey Serigne Touba bi bàyyi seen lépp seen yitte bàyyi seen lépp loo xamante ne nii moom lan yittewoo nekk ci liggéeyu Serigne Touba bi faalewuñ lenn loo xamante ne luñ leen di wax la wala luñ leen di xoole lépp ñu ànd ko rek liggéey Serigne Touba ànd ci ak mbégte ak kontaan ak bëgg-bëgg goo xamante ne nii bëgg-bëgg bu rëy la kon su boobaa ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax. leen ñaanal yàlla sëriñ bi defoon leen loo xamante ni lu kawee seen jott la kon ñoo ngi jéggalu bu baax ci eh, kàddu yi nga xamante ni moom la ñu yëkkatoo lu ci jub ñu xam ne mm, kattan yàlla lu ci dëng ñu xam ne suñu gàttu man-manu xam-xam la suñu wax. kon jërë ngeen jëf mbokk mi comme ni ñu ngi santal baax nga xam mooy soxna Diarra Seck ci xam mooy jëriñ daara ji.